loolu moo taxoon ñu tenir kut que coûte tey ci weekend bi pour distribuer leen euh, matériel boobu euh, def nañ ci nag fukki million ak ñeent ci matériel moom lañ jënd daaw matuloon loolu daaw fukki million ñaar ak lu topp la woon te ñu yokk ko ñuy espérer aussi déwén ñu gën ko yokk parce que chaque année élèves yi dañuy gën a yokk aussi voilà mais boo xoolee liñ def ci école yépp entre Eh, fourniture yi ñu distribué tey eh, table banc yu bees yi ñu jënd table banc yi ñuy réparé 400 ak trabo yi ñu def ci ci école yi tabax ay eh, salle de classe yu bees réparé ay salle de classe yooyu yëpp boo ko seetee mat na juróom-ñeent fukki million ci ci ci année bi et ñuy yaakaar déwén ñu mën a def lu ëpp comme ni ñu def chaque année. doléances yi ma fi dégg yëpp. moy subvention yi ñuy jàppalee euh, euh mu tuddati maître d'élève yi maître d'élève di ñu bëri ay organisation amna organisation yo pour maître yi la amna organisation pour parents de la ville, organisation yo xamni inspection yi la inspection d'académie bu sous-préfecture bi ak inspection départementale bi dañu di ñoom seen doléance li ci ëpp mooy loolu ñu leen di jappalé mu gaawu a génn ba nga xamé ne bu ñuy def seen i examen ak yoy fekk xaalis bi tew lolu nak c'est vrai que at yële passé daan yéex a génn di génn ay mois de juin mu fekk ñu nekk ci période examen voilà mais bion Inshallah, incha eh, ren jot nañ ko ci mois de mars bi et ñu bugg chaque année vraiment ñu tel ko jot eh, yeneen doléance ñi ki nak eh, boobu fàtte naa ko wax ci français mooy lycée Sébikotane dafa war a am lycée bu moderne bu baax lycée bi fi nekk ay classe yu taxalee rek la ay classe yu taxalee amul amul immeuble amul dara voilà terrain du jot yaatu na mën na defaat lycée bu bees ñu commencé tabax lycée bu bees classe yi fi nekk ñu ko leneen non

ak ben lycée mo nek nekk Sébikotane école privée yi boo seetee total bi ñaar fukk ak juroom ñett donc presque ñoo ëpp école publique yi voilà euh, même su fekkente ne ci ci ci boy xol ci euh, nombre ëpp ñu ko mais dafa dafa bari te ñooñu ñëpp ay doomu Sébikotane lañu comme subvention yi ñuy joxe fourniture yi ñuy joxe pour doomu waa Sébikotane école privée si ay doomu Sébikotane lañuy la ñuy employé donc ñoo fay jàngee donc ñoom tamit war nañ leen a gestu loolu moo tax ñu gestu leen